من زن خيرا لا يغني أو يدر فساد في دارين سكت الودر من زن خيرا لا يغني أو يدر فساد في دارين سكت الودر من ظن غير الله يغني أو يضر muy xasida goo xam ne boo koy xool ci ay baat <coughs> guddut ndax mën nga ne ñeenti bayit rekk la waaye nag lim ëmb ci am njàng ak i taxaw seetlu rawatina ci jamono jii manes na cee jariñu njariñ lu yaatu ñu jàng baat yi fiiri ko ci wolof doog a ñëw ci liñ ci mën a dégg ci maanaa ànd ak sunu gàttu xam-xam awalan mooy xasiida gi day wax ci bàyyee sa bopp yàlla arab di ko tudde at tawakkulu nga xam ne alxuraan santaane ko santaane na ko ay yooni yooni yoon te képp ku ko def danga noppalu waaye ku ko defut doo am jàmm mukk ci àdduna sëriñ bi ne bismillahi rahmani rahim maa ngi tàmbalee sama mbind mii ci turu yàlla yàlla mi nga xam ne mooy borom yërmane ju matale ji fii ci àdduna waaye yow mal xiyaam mooy borom yërmane ji nga xam ne da koy jagleel ña nga xam ne ñoo ko nanguloon ak yàllaam nangul ko ak wéetam doon ko kennal sëñ bi ne man wonna ku njort xayrallaahi kudul yalla, yughni muy mana jariñ aw yadurru wala muy mana lor fa zaaka njortu lola du kaddin boroomi nekh nëxi adunala, la wa durrin boromi lor la fit daare ni ci aduna ak alakhirah ndeysaan kep ko xamne japp nga ne amna ko mana jariñ dara wala am ko mana lor dara nah. ke day adunam yakuna ta te dana yak, yalla na ci yàlla musal ko aduna dana bari ay ay ay nekh nekh kad moy ay problème yu bari san, dana bari ay lor ko dana tumal ku nek dañ ma liggey sama badje na ma liggey sama wujju sama nangam, dana tumal ku nek dana yano ay ak yu bari san, loolu ne dana ko wax dana bëri ay nëx-nëx dana dem ci njabarkat yi loolu dana ko takk dana takk ba takk lu yàlla tere dana takk béjjën dana suul lu ne dana ko def ndax lan dafa yaakaar ne ngir mu jariñu te koo séenoo fu bëkkut fa njariñ nekk mooy fa yàlla saa borom dafa jàpp ne lim ragal la ko ci mën a musal leneen la lu bokkut yàlla saa borom subhanahu wa taala bayit lu ma tax seetaat la ndeysaan man wanna ku njort gayrallaahi ku yàlla ne kookee day yuux nii dana jariñ dara aw yadur wala dana lor fa saaka waajoo ji du kaddin boroomi tiis la boromi nëx-nëx la wa durrin boroomi lor la fit daaree ni ci àdduna ak àllaaxira am nañ ci yàlla kon fér-féri foo toll sa xol tiit koo gis dafa ne mënal naa la dara diw def may liggéey diw def maa def nàngam diw def maa def nàngam loo am dem ca njabarkat ya daal nga def ne say mbir daal li tax mu baax mooy li nga takk waaw li nga takk daal wala la nga suuroo wala la nga diwoo jàpp nga ne mooy yéwénal say mbir ba tax boo demoon boo demoon ba mu yàgg nga fàtte ko sax da ngay dëppaat ne sama ndomba ga ndeysaan xanaa xamoo ne am na koo xam ne loolu ngay def lépp moom defu ko te moo ne ëppoo ko alal ëppoo ko jàmm te moo la gën a stable moo la gën a nekk nekku ci benn stress Thank you